Thank you. situé à Guinaouraï Nord, en face du camp militaire Tiaroy, juste à l'entrée de l'autoroute à péage. Cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays, alors n'hésitez pas à choisir. Les niveaux sont répartis comme suit, élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77

li gën a fës ci xët yu njëkk yéenekaay yi dañu koy door rek lii quotidien lii quotidien muy xëy ak ñun ci xëtam bu njëkk di ñu xamal ni rek lii di société civile bi dala ña ngay weñ rek loxob nguurub Sénégal loole nag li ko waral du lenn rek lu dul ville yu ñu fi bëgg a jëlee ba tax sax ñooñee nga xamante ne ñoo féete ci société civile bi bëgg a taxawal ak mouvement gu yees du PECO deuxième V bi maanaam la mouvement pour le maintien des villes si ñàkk déggoo ak nguur gi sax la yéenekaay bii di l'évidence xëyee ak ñun ci xëtam bu njëkk mu ñuy xamal ni rek ONG 3D moom àndul benn yoon ak lii ñu fi bëgg a jëlee di ville yi àndul ak njiitu réew mi te bëgg kaa ci yoon bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di la tribune moo di Abdoulaye Makhtar Diop critique yéenekaay moom dikk ak ñun ci xëtam bu njëkk ak ndogal yi nga xamante ni moom la ñu jël yu yees ngir rek jëlee fi li nga xamante ni moo di coronavirus mu ñuy xamal rek ci xëtam bu njëkk ndogal yooyee daal nar na fee rek gën a dëgër ndax li ko waral moo di rek lim bi wéy di yokk ñetti yi ñu seen bakkan ci vingt quatre heures yi ñu génn ak Jurbel mi nga xamante ni rek lim yaa ngi fay yokk ba toll sax ci juróom-benn fukk cas te rek juróom fukk yi ak ñaar nekk ay cas communautaire ki corona bi tiital ba muy dànkaafu askan wi moo di Abdoulaye Diouf saar bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi jëwrin ji ñu dénk wàllu wérgu yaram mi ngi ñuy xamal ci xët wu njëkk yéenekaay bii di Vox Populi lii raam mi nga jëm ci ñag ba te bu fa amee kër du baax ci askan wi yéenekaay bii di l'observateur dikk ak ñun ci kaawu Ibrahima Sagna mi def pale ab kaa jamono yi ñu toll lii kaa te jaaxal réew mi quotidien ba mu samp ci ab laaj ci xëtam bu njëkk moo di kaawu xalifa Sall Khalifa Sall mi ñuy rek laaj ndax moo di rek chef opposition bu yees bi Walf Quotidien moom xëy ak ñun ci jàngalekat yi waajal seeni ay gerew ba tax nag moom sax mu def ci xëtam bu njëkk ni ñu xamal ni daal élèves yi rek ñoom am nañ ay zéro te noppeeguñu Les moom dikk ak ñun ci ay way takk der yu yem ci ab embuscade génne seeni ay fetal tiire ba far sax gaañ fa astayeur li lijjanti metti lool moo di yorinu tukki bi jaarul yoon waaw liñ naan immigration irrégulière loolee lañu site quotidien xamal ci xëtama bu njëkk tàggat yaram ñu doore kaag Lewandowski mi ñu tabb rek football kat bi gën a ràññeeku ci at bi bu ñu sukkandikoo ci réew mi sport record yéen kaay si la dikkaat ak ñun di ñu xamal lii kii di Lewandowski moo di rek football kat bi gën a ràññeeku bu dee Sadio Mané nag moom ma nga toog rek si ñeenteelu place bi stade yéeni moom mu dikkaat ak ñu ne ci footballkat bi gën a ràññeeku ci atum 2020 bi di ñu xamal ni rek kii di Robert Lewandowski nekk ab doomu poloñ bi mooy ñaareelu yoon rek muy nekk futbalkat bi gën a ràññeeku ci kanamu Messi ak Ronaldo ñu jeexalee tàggat yaram ak yéeni kaay bii di sunu làmb waaw sunu lamb moom ma di ñu xamal rek ci xëtam bu njëkk ni atum 2020 bi daal nekk na at bu doy waar ci axlu làmb bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay bii di sunu lamb mi ngi ñuy xamal ni daal at bi boole na corona ak génn àdduna yu bëri ñu féetee ci këru làmb waaye it dem Alioune Sarr ñëwu Bira seen ñu jeexale li gën fës ci xët yu njëkk yéenekaay yi ak yiile mbir yu doy waar fële ca cité alin saw ca Géejawaay as xale su góor bu toll ci ñeenti at lañu fa taal ba mu ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Vox Populi Les ko moom dikkaat ak ñun ci biile waaye doon bu boob takkub der ñu tëggal comme dëgg sërëx ba mu ne fa suruux ñu xëcc jàpp ràpp tëj mu ne waa ji moo am fit kon Amina bu ñuy abonné ba cliquer seeni cloche de notification yi ba noppi yow it mën ngaa tëj jumaa mu baraak